maanaam grand mbubb ak mbubbam ak tubayam nga jox ko nag mag moo xam ne mag mu yówee la mag ñi sax dañu wax ne da ngay tànn mag moo xam ne sikkim di sax dafa xaw a sëq loolu lañ ci gën a taamu même boo ko joxee koo xam ne xëy na sikkimum saqul mais ñoom loolu lañ wax nee ne daal boo koy jox na nga ko jox mag mu yiw moo xam ne am na sikkim bu sax ah, bu weexee nag mu gën ci kon loola moo doon sarax bi ci ina anzalnaahu boobu ma leen waxoon dama ko fàtte woon moo tax ma indiwaat ko pour ku dégg inaa anzalnaa boobu ma leen waxoon euh, nga xam ne dañ koy def riyaada quarante quarante et un su quarante et un jours yi pare mbubb moomu jarul ndax nga di ko sol mais boo ko ñawee defar ko ba mu àgg su quarante jours yi pare nga génnee mbubb moomu nga sarax ko mag mu yiwee moo xam ne am na sikkim moo ci gën bu amul sikkimet te nekk man mu yiwee nga jox ko ko alhamdulilah loolu laa doon fàtte loonu wax ca riyaada ba ma waxoon ci ina anzalnaahu léegi nag tey ma ñëwaat ci ndax waxoon naa leen ni li ma bëgg su ma ko yàlla mayee insha allah mooy duma génn alquran duma génn it wax mag ñu baax ñi nga xam ne bëgguñu dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne dañu bëgg yonent bi ba seen mbëggeel seey ci biir cofeelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama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 فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم mbokk yi adduna ngoog bu ànd ak alaxira bu dul neen waaw addina boo xam ne da ngay am addina te sa alaxira du neen mukk ci addina muy Quraysh ki ma ko jox yal na yàlla yërëm ko mu doon mag mu baax mu ni ma Cheikh tijan ma ne ko labayka mu ni bi ma ñëwee Dakar ak sama jëmm ju xeebu ji ñu bare defoon nañ ne duma ma am kër ma ne ko waaw mais benn mag mu baax laa taseel mu ni ma yaa ngi doog ñëw ci dëkk bi ngay taalibe boo xam ne bu teyee nga am bu teyee doo am yenn saa yi ñu woola ci kaamil nga wàccee kaamil yenn saa yi ñu jox la lu tuuti yenn saa yi tam wërsëgu yàlla nga taseeg moom mu ne ko waaw mu ne ko maa ngi lay jox loo xam ne du su fekkee sax nga ci koo ne moom laa yore sax du ko gëm dafa yaakaar ne leneen nga yor mu ne ko lan mu ne ko li ilaafi Quraysh mu ne ko bu fekkee mën nga ko 313 ba muy 40 jours mu ne ko 313 du ma ko bàyyi ci sama dund laa wax góor bi ne ko déetwaay mu ne ko du ma fas ma ko yéene bàyyi yàlla dogal yàlla dogal yàlla dogal yàlla dogal kooku fi ñu jaar bare nañu xam naa ni dëgg-dëgg nitu yàlla bu baax la nee ba benn bis rek yàlla may ko fi xéewalu kër yàlla dogal te man boobu maa nga dëkkoon ci biir dakaar moom nag moom mu ñëw dëkk ci peggu dëkk bi yàlla di dogal yàlla di dogal ba far maag moom ñu jege yoo kër bi ma ne kë maag maag sëriñ boobu ñoo jege yoo kër gëmu ko gëmuma ko ndax kenn ku ci nekk daal ni yàlla daal moo man moo tax ñu ñaar ñu jege yoo ma ne mu ni ma yaa ndax yaa ngi ci Quraysh ma ne ko maa ngi ci Quraysh mu ni ma dooñee sa benn moroom te loo bëgg te doogu ci yàlla dana ko def mu ni ma maa la xamal ni lenn ma ni ko waaw mu ni ma turu talsam yi lay jox ak sax-sax yi lu nekk ma ni ko waaw mu nag bu ci bu ci sukkandiku de alxuraan ni mu wàccee ni ko yenent bi doon jànge na ko jànge noonu te gëm ni danga ko am buñ la jox benn talsam naan lii ngay defal ak boo ko calculer ne lay tolloo moo génn ci nangam ak moo kii nangam mu ne bu ci def dara amul njëriñ xam nga lu wér mooy ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon jàngee li ilaa fi Qurayshin na nga li ilaa fi Qurayshin noonu te bañ ko bàyyi mu ne ma bis bu jëpp nang ko jàng 313 moom da ko doon bindal góor gën a di ko bindal góor ga mu mujj góor gi ni ko li may bindal dama la koy jox doo ñee sa nawle mukk ci àddina mu ni ko waaw mu ni ko waaw moog moom moog moom moog moom ba keroog bi mu amee kër am benn mbokkam bu jóge Saalum ñëw bi mu ñëwee ci kër gi dafa waaru ndax moom dafa xool jëmm ju xeebu moom mu ni jëmm ju xeebu ji ni mën a nu mën a amee kër looy liggéey mu ni ko yàlla wërsëgu yàlla day moo tax mm. ah, tabaarakallaahu mu ni ma bu fekkee yaa ngi sax ci cent 313 ci li ilaafi Qurayshin ma ni ko ah mu ni ma da nga am tuyaaba da nga am wërsëg da nga jubóor yàlla te doo ñëwee sa benn nawle aha ma ni ko waaw ma nekk ci rek man tam li ma waxoon wax dëgg yàlla gis naa ci lu bare bare bare bare euh, moom dafa àndoon ak benn mbokku taalibeem mbokku taalibe bi nag yàlla dogal na mu yéex a am doom nee na ñuy sonn ñuy sonn ñuy sonn ñuy sonn pour wuti doom mu ni moom dana am doom ndax 1974 la ko yonent bi ñu ni ko danga am doom mu ne moom dootul ñaan lu mus nee na ma musumaa ñaan lu ci doom li ma yonent bi waxoon laa gëm xaritam boobu yàlla dogal na ñoom ñaar ànd nañu ba xarit ba am doom ba yàlla dogal na ba xarit ba sax dafa mujj faatu moom moo yore woon waa këram mais ci kattanu yàlla ci mbaaxam moom mbokk moomu euh, 2005 mille deux mille cinq la am doom deux mille cinq mu ngi ko tudde sëriñam Cheikh na Tijaani al Hasani radiallahu anhu ñaari doom ñooñu la am ndeysaan dundaat na fi xam ni gaañu na ay bi mu gaañoog léegi en tout cas daal dem na ba gis xale yi ba xale yi dëgër ba moom dafa jàng alxuraan te di nelaw ñu ne dem leen au sëriñ fekk ko faatu ken xamul febaru deful dara dañu ñew fekk ko rek mu jang alquran ba pare def ay lawratam teud fi ñewé lañ ko fekk mu dem barzakh mom ku baax koku amna na ci lu bare nak lo xamne sax jarul ay detail jarul wax mais dal li wér te wér ma li ilaafi qurayshin bis bokoy jang 313 mu ni ma nag na ko def riyaada moy lan ñen fukki fan ak ben guddigu jot tamu nak mom guddi lañ ci tam jot nang ko jang 313 su fekke dem nga ba def ko ba 313 yoyu mat manam guddigi mat mu ne ko waaw mu ni ma fu la nit santeeti aajo su fekke aajo bi dina faju mu ne ko waaw mu ma boo ko 313 ci li ila fi Qurayshin su fekke amul dara dara lu dag mbir mi ba 313 yi ag ma ko waaw mu aajo bobu ñu la ñu la wax dara faju su fekkee nag aajo bi du faj 313 yi pour nga àggale ko beneen affaire lay doon kon nga xam ni aajo bii moom des na fajoo mu ni ma nag ñu baree bare dañu foog ni lii laa yore mu ni ko mu ni ma mën yoruma benn tur yàlla boo ko nee listixaar mu ni man du ma listixaar moom daal dangay wax ban aajo nga wax ma ñaanal la ci nee na su ma ci duggee bu ma jëlee xorich euh, bu ma ko defee 313 dara dara dagg ko ba mu àgg damay dem tëdd nelaw ni waa ji aajo bi dana faju te dafay faju mu ne bu dul faju nag moom ala kulli haal fokk mu am gàllankoor kon mbokk yi xuraysa ngoog am na ay dox yu bare na lool lool lool lool kenn xamul nu mu toll mais li wér te wér mooy ku ko mën di saxoo 313 mooy ñetti téeméer ak ak ñett ndax ñi may déglu sax xam naa ni am na ñoo xam ne dañu mel ne man boo nee 313 ñu mooy ñetti téeméer ak fukk ak ñett. mooy al awnu min allahi ndimbal mi ngi jóge ci yàlla kon al awnu min allahi am na sax ñuy wax naan asmaa ahlu badrin mais li gën a wér al awnu min allahi boo ko calculé la lay jox te awlu te mooy al awnu mooy ndimbal min allahi mi ngi bàyyi ci yàlla kon fal yaabudu rabba hadha al bayt alladi atamahum min juin wa amanahum min qaw li ilaafi quraysh ilaafihim rihlata shitaai ni leen nag alam tara kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiil ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعص مكون لإله قريش كن لوري لون لب يلا موكا دفل قريش باي في ساروي كو بغا تد أدنى بغا تد الأخرة من كو كونتيني ديكو دف سو فكي نك يلا دوغل نبت 313 يوين جانبكو ب 41 جوري مت سبوبا نانغا دادي باي 313 yoyu bu la nexé nga koy def toujours 114 auto moy témer ak fukk ak ñeent mu tollok jami'u tollok bismillahir rahmanir rahim manam tollo jami'u tollok saaru alqur'ani li ku yàlla dogal nga sax ci da ngay am yàlla am aduna waliman qafa maqama rabbih rabbihi lool la yàlla bëgg dafa bëgg nga bàyyi xel yàlla mais itam nga ñaan àddina am teranga ba doo ñeetaane ba doo dem di ñaanaatu ba doo dem di yàllu sa bopp soo ko defee yàlla dana la defal sutura àddina dana la defal sutura àllaaxira kon xoree si ngoog maanaam nag li ciy njëriñ dafa bari lool lool ba kenn munu koo lim mais li wérte wér mooy soo paree lépp loo bëgg ci wërsëg ñaan ko borom bi subhanahu wa taala soo paree itam ndax am na mbokk moo xam ne sax كسيو الانتلكتيال تبارك الله ما سنما وقت خريش لو خامني من داف ما ييب تي ادنا ماني كو ما ما سما فون كوبر فور دوما تي جوت دوما كو دوما فا اد مو ماني كو لوتاخ ماني لي اله قريش موتاخ ndax ben ماغا مكو جانغال تي سالوم نيما بوكو ديفي ني ديف كو تي سبير كوبر فور دو لو يكتي يكتي بو صوب يالا كوبر فور با دو جوت فون تسور رك لو فا جيل يالا دنا اندي وات لوكو اوب لولا نك موم jot jot na mako koo mais jot mako wax wax deug yalla wane li wér te moy sax len ci 313 li ila fi quraish ba 41 jours yi mat ngeen diko jang guddi gu jot 114 fu temer fukk ak ñeent sax ci so paree nga ñaan lo bëgg so paree nak nga sarxé ñam nga sarxé ñam manam lu mel furwi lo wi koko jox ma furwi bu dé ci dëkk yi rek moy moy meññent mo xam ci kaw garab lay jori mom moy furwi wala meññeent muy jóge ci suuf lu mel na pombiteer lu mel na pataas lu mel na carotte lu mel na nawe lu mel na kii bu dee yeneen gàncaxu kaw yi fii mm, bu dee ñun liñ si gën a bare mooy am nañu xeetu gàncax yu bare mais bu dee ca réew tubaab yi tam am nañu xeetu gàncax yu bare mooy nga joxe lu meññ ci garab wala ñu meññ ci suuf muy loo xam ne meññeent la lu ñuy lekk la asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu